salaamaaleykum euh, ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp bëgg def benn vidéo bu ndaw rek <coughs> di wax sénégalais tey lu ñu vivre tey ci si biti ak le président Ousmane Sonko mës nañu xam nañu Macky Sall ak régime bi nga xam ni seen mébét yëpp mooy rey Ousmane Sonko ñu doon wax naan dañu bëgg rey Ousmane Sonko gëm naa ne tey dañ ko naroon rey mm-hmm. tey ce qu'ils ont fait brutalité bi ñu utiliser contre moom contre Guy Marius Sagna contre ñun ñii tey yàlla moo ñu suturaal jël nañu le président Ousmane Sonko sotti nañ ko ay substance yoo xam ne sax tey jii nii lu ko mënti dal fii ak ay fan xam leen ni Macky Sall la ak ay alkatem xaw ma ay alkati lañ xam mais brutalité bi ñu àndaloon tey musuñu ko gis ils l'ont forcé ils l'ont brutalisé ils l'ont battu ils battu amul lu ñu deful ba biir tribunal ñu jóge fa delluwaat kër président Ousmane Sonko ils l'ont fait ils nous ont encore une fois président Ousmane Sonko mu ngi noonu bëgg génn dem à la clinique ñu xool ko ñu bañ lu ko dal nañu xam ne euh, euh, euh, ñoom la gëm naa ni tey il voulait attenter à la vie du président Ousmane Sonko tey gëm naa loolu te dara wóorul ni def nañ ko wala sotti nañ ko loo xam ni ëllëg mën na am jeexital ci bi daañu continuer di xeex nous allons continuer à résister contre le régime de Macky Sall luñ ko seetaan muy def lu ko neex réew mi moomu ko Macky Sall réew mi moomuloo ko nañ la ko joxe woon noonu lañ koy jëlaatee incha allahu rabbi nguur yàlla rek moo dul jeex di nga arrêté di nga arrêté par A ou par B yow yaay responsable lépp loo xam ne tey dal na la président Ousmane Sonko je l'assume et je le réew mi nag amatul institution ñun même les députés que nous sommes qui représentons l' institution yéen sénégalais yi jël jël ñu yóbbu ñu assemblée nationale ñuy xeex guddeeg bëccëg pour yéen loolu la tey Guy Marius Sagna luñ ko deful ci lu bon amul démb la ñu gazé gaañ ko tey même chose mu ngi noonu kenn xamul lu ko dal kenn xamul lu muy nuroon Guy Marius Sagna ne mérite pas ça nous ne méritons pas ça le président Ousmane Sonko ne mérite pas ça daañu xeex nag lépp lu ñu yoon may daañu ko utiliser pour jële fi Macky Sall Macky Sall di nga fi jële di nga fi jógee par A ou par B lu dal président Ousmane Sonko ah, fan yi lu ñu gis ci moom lu ko dal vous serez le seul responsable li ci des nag mooy lañu ñu waxoon daañu ko ne nous allons résister c'est la constitution qui nous demande résister et nous allons continuer à résister Macky Sall tu devras marcher sur nos cadavres duñu la ragal tey duñu la ragal ëllëg daañu xeex ak yow comme nañu xeexa woon ak Abdoulaye Wade ba jëlee la fi danañ la fi jëlee par A ou par B pare nga ci Sénégal li nga bëgg mooy nga toog ci nguur gi définitivement li nga bëgg mooy éliminer président Ousmane Sonko loolu du am yow yaa dul bokk mais président Ousmane Sonko dina bokk un voleur comme Mame Mbaye moo tax tey Sénégal di tàkk regardez ce qui se passe dans ce pays c'est une honte Mame Mame Mbaye Niang moo tax tey Sénégal di tàkk te kenn xamul lii commencé nii fan la jëm personne n'est à l'abri ay nit commencé nañu te ñu ngi attaqué ay édifices ñu ngi brûlé ay Auchan lu ko fi jar Mame Mbaye jaru ko Macky Sall jaru ko il faut que ça cesse euh, il faut que ça cesse ñu ngi koy wax nag à l'endroit de la communauté internationale le président Ousmane Sonko a été violemment agressé aujourd'hui nous qui l'accompagnons nous avons été violemment agressés nous avons nous avons été battus, nous avons été gazés avec des pompes venant on ne sait d'où. Le président Ousmane Sonko a été gazé, brutalisé. Ils lui ont déversé des liquides dont on ne connaît pas l'origine et la dangerosité. Nous nous adressons à vous, la communauté internationale. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal. le dictateur Macky Sall veut s'imposer au pouvoir et éliminer tous les candidats qui le gênent. C'est à cause d'un voleur comme Mambé qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train de brûler. On ne sait plus ce qui adviendra dans, dans, les, dans les prochains jours. Nous sommes tous dans l'instabilité. Nous sommes tous dans l'insécurité à cause de Macky Sall et de sa milice et de certains policiers et gendarmes qui sont complices de tout ce qui se passe dans ce pays. Le président Ousmane Sonko ne mérite pas ça. Il ne mérite Et on ne sait pas ce qu'on lui a fait. On ne sait pas, les, on ne connaît pas l'origine des liquides et la dangerosité, comme je l'ai dit, qu'on lui a déversé. Macky sera responsable de tout ce qui arrivera au président Ousmane Sonko dans les jours à venir. On lui interdit de sortir même pour aller faire donc ces, ces, ces, donc ces consultations. Nous ne pouvons pas continuer à accepter, accepter Nous allons continuer à résister parce que c'est la constitution qui nous, qui, nous, qui, qui, qui nous demande de le faire. Et nous allons continuer à le C'est ça que j'avais à dire. Sénégal, li fi xew ni ken xamul fu mu jëm te lepp lu fi xew ce sera donc euh, l'entière responsabilité de Macky Sall et de ces voyous comme Mambéignan qui sont de vulgaires voleurs qui ont pillé l'argent public et qui veulent s'acharner aujourd'hui sur le président Ousmane Sonko.